ñu déglu Serigne Afey Niang Pape Abdoulaye Maama Diallo tam benn xasida bu mu def ci seen maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu taala anhu doon te day mat cinq ou dix minutes continuer programme bi bu ñu paree bu ñuy jëlee tuuti ñu jox Abdoulaye Samb professeur mu génne li muy génne ñu jox Serigne Sidi wala Serigne Moussa ku ci jël tabarakallah ñu delloo leen micro bi. kon sëñ Afe bismillah. digal sa tedd bi moo ma woo muy Mouhamadou Mansour bëgg bi ma sëñ bi dem euh, boo ma ne bind tuuti ci euh, suñu ñaari wayjur yooyu. waaw ñu dara maa ngi ko maa ngi yaakaar ne sëñ Mouhamadou Amine Niang ci bind mu ko daan defee. mu ne waaye boo ko mënee rek jéemal ma ne ko xanaa ma def ma jéem ci sëñ Xaaj maa ngi nii lay déglu parce que li li may ñëw ci yoon bi léegi nii ci 10 heures ci suba laa koy jéem a àggale defuñ ko sax tas ceeb maa ngi koy def seen amin léegi ma doon ko xool ndeysaan àggul sax waaye comme ndigal la ma jéem ci rek bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi afaada ala awliyaihi buxuran anwaari wa jacalahum macaadina almacaarifi wal asraar والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم سيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وكل من استنى بسنته إلى يوم إلى يوم ازدحام العالمين ورضي الله عن القطب الأبر والولي الأشهر برزخ البرازخ تاج العارفين وممتهم مولانا أبي العباس أحمد بن محمد بن حسن الفاطمي وعن جميع أصحابه وخلفائه ومقدميه وكافة أهل الله ومنهم حامل لواء طريقته سيدنا ومولانا سيد الحاج مالك سي الذي خرج من خرجوا على يديه وهو تحت ظل عرشه كرام نفخاء كتاب وشعراء فقهاء وخطباء أعلام أجلاء جهابس النجباء قد حملوا أصل السبق رضي الله عنهم wa nawwara allahu bihi ma nawwara alhamdulillahi wa shukru wal minna wa baad fa hadihi qasidatun daila aw shibru qasidatun wajiza من الابن المتعلم الحقير حقير عافية عبد العزيز الفقير إلى جانب ولي مذكور السيد الحاج مالك المشهور قائلا بعون الله وقوته حمدا لذي فضل المنان مقتدر يعطي لمن شاءه ما شاء فالشكر بشراكم آل هذا الشيخ مالك من مولاه خصصه ما ليس ينحصر عليكم دين شكر لو غدا مطرا يا ويح غرقكم في الطل فالمطر بنو عكاشة أنتم إذ أتى القدر لسرق تخصيصه بالفضل المفتخر بسرقكم أي سرق غيركم أبدا بلا عنا واتهام ذلك الفخر kullu zalika mimman ijtimaacukum hada almusabbibu daka alqutbu walxibaw daka alladi madda raayaati lculumi tura sharqan wa garban xafuuqan daama yuntasaw daka alladi nujabaau lqawmi ittafaqu bi sabqi aqraanihi qatcan fashal xabaw min al ijazaati mimma la yuaddu min al bidaali wassuudi bax bax nicmatal wataru wa min masajida alaafin taassasaha kada al madaris wal ashyaaxu yantashiru bacda taallumi lil aafaaqi farraqahum laaxu nujuuma samaain saadat nuura fa innahum xamilu qasda sibaaqi ala aqraanihim ay fadlin minhu muctabar ulaa'ika alqawmu laa yasqaa jalisuhum tallaahi maa saytuhum fi dëhri yandafiru akrim fa akrim bi haadi turbi tajibatan min tiibiha taabatin aafaq taftaf wa su'datul ardi maqbulun fadilatuhu bi qadri sukaaniha fa rabbu muqtadiru jidtu bi taazimihim takrimihim abadan id kulluhum malikun in yulfa mu'tadir azka salaat azka salaati ala almahmudi sayyidina wa sahbihi man bihim fa diinu muntasiru maa qaala abdun li rabbin fi taxawulihi hamdan li di fadl min man laa nu muqtadir asalaamaaleykum wa rahmatullah هادنا تيسر منشرنا يجزيك بالإحسان إحسانا continuer programme bi. ci di dugalaat ñoo xam ne rek dañu di gërëm fu mel ni Maodo Diouf sëñ Moussa Ba mi ngi fekkoog yow waaye bu ñëwee rek mu wër lu mu am jënde ko ndax tabaarakallah comme ni ko sëriñ Sidi doon waxee ci mu ni ku mën a sax sase boo xam ne xam ne vingt cinq francs la wala cinquante francs nit mën na ko jëriñ moom ndekk te dem lu ne professeur Abdoulaye Samb dañ koy ñaan mu ñëw donte cinq ou dix minutes bu ko waykat yi way ñu jox sëriñ si ñoo xam fu ñuy dugg ak ñun tabaarkalla ñu tëjal ñu ba beneen yoon waaye képp fu kuñ fi gërëmul jege guñ rek fi taxaw la xam nga lu tax bu xasee waame bu xasee taw soo bëggee lim li jëriñoo ci taw bi fa ngay yem. waaye ñun ñi ñu amee ngërëm ñun bari nañu lool lool lool lool yàlla yàlla xëy na li jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye am na koo xam ne ni si dama koy bañ a tudd waaye ma tegtal ko ma tegtale ko waaye moo ko ñuy àndal borom pas-pas lañ borom doog lañ xam nañu ni ah te xam nañu ni. maam Cheikh Al Hadj Malick lam daan jàngale te sa seen maam baax yi wax ko te alxuraan li ko woon ko wax ñëpp jàngale ñu alxuraan mais jëfe ji moo def. sëñ si ba Idaara Fatou Sow balaa xam saa benn yoon bi si wàllu kese la amoon ñëpp jàngale ko mais ñëpp jëfewuñ ko. moo tax seen maam Cheikh Al Hadj Malick ñoom it du juddu mbooloo fa tàkkuwul yi tas na mu na ngeen xam ni fan ansaar tous dafa teg waaye damay bañ a tudd turam waaye bu tuddul Mansour jaaxal na dafa mel ni noonu la tudd waaye jarbaat bu gën a baax dootu amati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم dafa mel ni de la benn poète waxoon ndax ña ko jiitu dañoo wax ba pare mbir ma sax xaw waaw mu ñëw ni je me sens insuffisant maanaam yëg naa ni daal sama bopp man amatuma ci sama bopp ndax ji ma jiitu liy baax yëpp dafa doon xanaa ñu jéem a liifantu doonaat ndongo lu liifantu teg ko ci bi fii daañu baax sëñ bi jël micro bi léegi wax ni maam Abdou teewul wax na dëgg Pirago Diop auteur des contes de la Vanne dafa wax ni les morts ne sont pas morts ils sont dans l'enfant qui grandit ils sont dans l'eau qui coule ils sont dans le sein de la femme ils sont dans l'arbre qui coule maanaam lépp lu yëngu ñu dem ñu ciy fee Cheikhul Khadim way na ko xoqal bu kaaw. dégg wax rek nag bu nga gars yi mokkal xasee yaakaar naa moom ko waxee ni xoqal bu kaaw ala saadaati amwaati tabkin alaati alayhim ka samawaati boo koy tubaab day doon que ni pleurer les morts est une obligation les morts les maîtres disparus pour verse des larmes la terre et cieux maanaam nee na jooy sang yi dem wareef comme ni asamaan ak suuf di jooyee ñu baax kon ku xal bu kaaw euh, dañoo liifoon doon ci maam ab bi ci français dañ koy résumé ndax nous connaissons tous qu'il est famille très noble Parce que la noblesse familiale ne saurait dépasser être le fils de Charles Hajmali et de Sohna Safia Il est né en 1904 à Tiaon. Mais nous nous posons des questions. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce saint homme et par Parce que les dimensions de cet homme de sorte qu'il est difficile de se focaliser sur un aspect de sa vie, vu les multiples dimensions qu'il a incarnées toute sa vie. Cela n'empêche, l'exercice sera difficile, on se pencher sur sa quête permanente la paix et de la, de la stabilité sociale. Ses ans, son enfance et ses études peuvent se résumer en quelques étapes. Il est né à en 1904 son jeune âge, au Coran fut assurée par son propre père et maître, la journaliste de Il dut continuer ses études auprès d'autres maîtres, comme Serine Biram Diop à Saint-Louis, où il rencontra les condisciples d'El Rachman Diallo, ancien imam pratique de la même ville, El Haj Abbasal, El Haj Tidano, etc. Seigneur Abdou aurait aussi fréquenté d'après sources l'historiographie mentionne aussi son passage au large de Serigne Bassine, et la dernière étape de cette quête du savoir semble être face tournée au gré du grand Cheikh Touré. Ces quelques éléments de dire qu'El Hadji Abdoul Aziz a suivi les traces de son illustre père pour acquérir de toutes connaissances dans plusieurs domaines. En lettres, en grammaire, en droit islamique, en sciences, en astrologie, la liste est loin d'être Le natif de Tuaon s'est éduqué toute sa vie à se à la charia et la sunna, telle que recommandée par son créateur. Les exemples sont multiples. Durant sa vie, les recherches nous permis de dire qu'il s'est limité à quatre épouses. Il est allé à la Mecque dans des circonstances où s'accomplissait difficilement le cinquième pilier de l'islam. Cinquième pilier de en même temps que les Oudiaz et Lamine Gueye Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma c'était en 1935 en plus El Hadj Abdou Aziz n'a jamais cessé de travailler pour gagner honnêtement sa vie c'était un grand agriculteur les champs de Diacksha de Diamaguène euh, de Aïnou Madi peuvent en témoigner si les terres pouvaient parler ils parleront tout simplement des activités agricoles de El Hadj Abdou Aziz La plus brillante illustration, c'est qu'il a reçu la décoration au grade de chevalier du mérite agricole par décret du février par le ministre de l'Agriculture de la France. Par rapport aux langues, sa maîtrise de l'arabe et du wolof se mesure à l'aune de la qualité de ses nombreux poèmes dédiés au prophète Sidna Mohammed, à Sid Ahmed Tijani, à son frère El et à ce niveau, la Chassida qu'il y a à Sirou Babakassi en constitue une parfaite illustration. Nous savons tous qu'elle lâche en tout. Écrivez les poèmes, il mélangeait le Wolof et la xalifatu cheikh wal muxtaar yaa sidiwe tous leen te baax ko biir xam daa moo ko yeyoo daan sa ji gaa ngi te mbër maa moo di ko def bés bi may ma ne Euh, se souvient-on aussi de son mémorable discours prononcé au Congrès islamique à la Mecque en 1965, congrès au cours duquel il était désigné comme le représentant officiel de la délégation sénégalaise. woykat ba njëkk may woy na ko Abdoul Aziz discours am ba mu defoon wax waar na képp kuy naan boo weddee li may bëgg a wax laaj ko Cheikh Mbacke Yaaw Euh, nous allons donc terminer par un autre chapitre qui est donc place à place ici, le pèlerin de la paix. L'année dernière, nous avions parlé de Charles Haj en tant que pèlerin du savoir. Si le pèlerin du savoir maintenant a permis au pèlerin de la paix de s'exprimer, je crois que c'est une parfaite euh, coïncidence. Comme on le sait, l'âge Abdelaziz est d'une noblesse familiale, donc religieuse, qui ne souffre aucun doute. Non pas en termes de filiation, mais d'une lignée vertueuse. Fils de Cheikh Malissi, qui a incarné toute sa vie, qui a consacré toute sa vie à l'enseignement à l'éducation. Le sage de Jackson, à l'instar de ses autres frères, a été nourri des valeurs de l'islam en général et de la Tijana en particulier. Et n'est-ce pas que le verset de la Surah Al-Ara nous renseigne Le bon pays, sa bonne végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort Ainsi déployons les enseignements pour les champs de production. C'est avait un destin déjà tracé. En tout cas, la tradition orale raconte que son père lui adressait ses propos alors qu'il fut tout petit. yaa ukhti fii shibbati in lam takun anta faman yunqiduni min ar-radaa yaa saaxibal fi'lil xasan tuubaa liman baata bikum musharradan xalifatan En d'autres termes en français, El Hadj Malick adressait au jeune Abdoul Aziz ces termes. de nos souffrances, sans toi qui d'autre pourrait nous délivrer donc des durs épreuves, ô toi le bienfaiteur aux actes nobles. Quiconque trouve refuge auprès de parce que exilé de son pays pourrait s'estimer heureux d'être sous ta bonne protection. Ces on ne de cet homme dont toute la vie a été une action au service des autres. L'agent Aziz avait donc la lourde mission de conduire non pas seulement les destinées de la Guatemala, mais de raffermir les liens entre les, même les membres de la mouvement islamique. Il a tissé et développé de bonnes relations toutes les confessions religieuses de son pays, dont la stabilité sociale lui comme à la première de déjà en 1939. Il partit à Touba rendre visite à Mohamed Moustapha Mbacké, ce qui lui avait valu une convocation à Saint-Louis par le du bureau politique de la colonie. La réplique de Serigne Abdou, quoique discipliné, fut teintée d'un courage, démontrant sa ferme volonté de ne pas se soustraire à sa démarche. Durant toute sa khilafa, de se pays pour magnifier les Malgré le poids de l'âge, il s'est toujours prononcé sur les problèmes qui secouaient son pays. Les exemples en sont nombreux. La crise scolaire de les événements entre le Sénégal et la Mauritanie, et j'en passe. Et lors de, nombreux, prêches et causeries, il ne cessait jamais de rappeler aux musulmans leur devoir envers Allah et envers leurs semblables. Sur le plan politique, la Aziz était à équidistance de toutes les chapelles. C'est pourquoi toute la classe politique ne cessait d'en appeler à sa sagesse pour ramener les uns et les autres à la raison. Régulateur social européen, il ne manquait pas de se livrer à des de critiques dans la marche de la société pour dénoncer énergiquement des tares aux antipodes de la morale religieuse, la franc la dépigmentation, la division des musulmans, etc. et sans se soucier ni de sa propre famille, ni de sa, de tout ce qui les importait, c'était la vérité donc de Dieu. On ne peut épuiser la personnalité de cet homme qui avait inscrit son action dans le cadre de rendre service à son prochain, de s'effacer au bénéfice des autres, de se priver de tout pour les autres, en donnant sans compter, sans rien attendre en retour. Toutes ces qualités qui font LH Abdou constituent un sujet pour toutes les catégories de chercheurs, historiens, sociologues, algéographes, psychologues, etc. Son effacement, son altruisme, son humilité se lisent à travers ses propres mots. bal ma koy wax ci wolof ni mu bëggee woon jàmm nit ñi wàcce boppam suufeel boppam te diisoon gan nga xàgg ci yàlla taxoon na mu ci boppam ci ay waxtaanam mu daan wax ni bu dee président jotewuma ak moom loo koy xeexe bu dee doomu soxna ñoom ñëpp nangu naa ñu fab buum def ci sama baat war ba fu neexee ñu ma dellu ci kër gi mu del waxaat ni lépp loo xam ne Abdou gis na ko muy wàññeent ci diine ji mbaa mu jëm ci peuple bi Abdou dina ca def la mu doon te ci am lu mu jëm ces déclarations donc de tout commentaire car l'allusion suffit al isharatu takfi ñu conclure Nous disons que de 1904 à 1997, toute une vie consacrée à Dieu, aux hommes et à Dieu, de sorte qu'on serait en train de dire que mort appelé est absent et présent, ou présent et absent en La plus brillante illustration nous a été servie le 23 juin de te loolu ba réew mi bëggee tax ñu assemblée xel yépp dañ ci Cheikh Hadj Ibrahima de l'au-delà sa lumière illuminera l'ici-bas pour le retour de la paix devons-nous le pleurer comme le disait le poète j'ai dit non nous devons perpétuer son œuvre en suivant ses recommandations pour bénéficier à jamais de la grâce divine il mérite donc enfin d'être enseigné dans tous les cycles de l'enseignement et du système éducatif, aussi bien en français, en anglais, en espagnol, en allemand, etc. kon ñu tëjee rek ñaan xam naa même moom lii fëpp rek xam naa bu ñu jógee jëm koo amélioré waaye ci li ci sànq yi wax yëpp yàlla yàlla baax na yëpp. ربي سنانا

xalwa doon wéetal boromam ci Cheikh na Tijaani radiyallahu taala anhu ne waqad jaana fulkun najaati waqad nafaana araba moo tax ginnaaw moom koy taalif yëg-yëg bu ma am ci boromam am ko ci sallallahu alayhi wa sallam am ko ci Cheikh na Tijaani moo tax bu ñu koy woy rek ni ñu ko woy mu yàlla wér yàlla. danañ ko baax lool waaw moo tax ak ak sànni gi baax na lool yenn saa yi buñ koy woy mag ña bañ koy taalif nañ ko yëg mu ànd ak woy bi baax na ci nag am na solo lool. إلها لطيبة لا ترم سواها وعساك أن تهزى بروح لا so وذنبي ولكن ربي عظيم النوالي أيا ذا الجلال والله ويا ذا الجمال والله ويا ذا المعالي عليك بك نخبة هاشم صلى الله عليه وسلم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر تبارك الله حسين دواما مدحا وعسى دواما مدحا نخبة هاشم تنال الذي تبغي من الفتح تنال الذي تبغي من الفتح واليسر xam nga ko yow. xaw ma ko dese. wa xasin qawaaman martaha mahbatu xarsami tanaalu bi tabri min al faxi wal yusri maa ko ndax xam na ko ndax xam naa ko ndax xam nañ ko. alxames am na ko wax. amal teg. wala jéem a teg. góor góor day takk nii ki xaaj lan yi ak xaaj affaire ni ñu góorgóorloo tey ba taalif jëmee ci kan jëmee ci sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi El Hadj Malick ba ci Alhaji Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu Mame Abdou nee na tabri min al fathi wa kanaan ladi tabri min al fathi wal usri da nga am ci lépp looy sàkku ci ubbite ak lépp lay sàkku ci yàlla yombalal na say mbir moom ma ko wax xam na ko tàgg na sallallahu alayhi wa sallam Maodo koy way Moustapha koy way maa ngi tey keneen ak tey jéemantu di way waaye ndax buñ ko jógee danañu am fàqu ndax danañu am yusu yusu. waaw daa yóbbu leen kon moo tax ma ne leen sànq tagg yi na yàlla we ndax yàlla boo bëggee dara ci moom da boo ko defee ngir yàlla rek am la ngay te moom waaye soo ko dee def ngir nit ñi nit ñi gërëm la te yàlla gërëmu la moom yàlla subhanahu taala du jëriñ alhaji abdoulah aziz dabaax mi di wax sànq ba léegi wax ci moom lépp lu mu am yàlla moo ko ko bu yàlla reesee sallallahu alayhi wa sallam Cheikhuna Tidiane ñaata at la dund 1904 ba 1997 ñaata la 93 ans boo jëlee 9 plus 3 mu jox ñaata 12 1 plus 2 3 dundam yëpp gënul ñett yi yàlla yeneen tamit Cheikhuna Tidiane déglu du wax sànq da wax ne alxaaji Abdou Aziz faatu na génn na àddina duud na leen bu leen ko waxati alquran moo wax ne wala taquluna liman yuqtalu fi sabilillahi amwaatun bal ahyaun walakin la tashkurun yàlla nee na bu leen wax mu ñi faatu ci yoonu yàlla jihaad fi sabilillahi nekkul yor yor sa jaase ci xeex yi kooku lees na xam nga mooy lan fexe ñi nekk ci njubadi nga fexe ba jubadi leen ba ñu tegu ci yoonu yàlla na ci ba ni mu génnee kon faatu na ci yàlla mu ngi ci biir suuf jëmm ma ngi ci suuf ñu denc ko ci suuf waaye ca xol yi lañ denc ruuxam lañ ko mën a delloo njukkal nag moom alxaaji Abdou Aziz mooy ñu jéem a fexe ba yeneen alxaaji Abdou Aziz am ci réew mi moom fexe na ba sallallahu alayhi wa sallam ñi gën a àddina yeneen sala beneen sallallahu alayhi wa sallam wala yeneen am na ci yeneen yeneen Cheikh Ahmed Tidiane am na yeneen Seydi El Hadji am na mooy lan fexe ba am seen jikko waaye tey jii alxaji Abdoulaye sopp naa ko alxaji duñ duñ ko tuddee nga fekk su. Mm. yor yëkkati su xaalis joxe ko. te jéemuloo mel ni moom du jëriñ. fexe ba mel tegoon tànkam teg bi nga fexe ba jël sa tànk teg ca. waaye bu Sénégal demee ba ja ba jaxasoo am rek ñu jël kasetam mel ni kañ lañ koy soxla mooy bu ñu jaaxlee bu ñu jaaxlee woon sax war nañu di nafaraat ay jikkoom di nafaraat ay kàddoom ngir ñu mën a xam naka la ñuy defaree suñu diine naka la ñuy mën a defaree suñu digganteeg suñu bopp ak suñu digganteeg nit ñi. ndax léppam yàlla la léppam sallallahu alayhi wa sallam léppam Cheikh na Tidiane léppam mu ngi taxe ba nit ñi ci seen jëmmi bopp xam ñooy ñan Mame Mansour nee na addina bi yëpp buñ la réere xamal sa mu ne réere gi la addina bi réere su boobaa xam nga rafet day mujj mu ne waaye balaa addina bi yëpp xamee nga réere sa bopp ne da ci nekk ci lekk ba nga juddoogul fekk na la nga dee te ku xam sa xam yàlla waaye ku réere sa bopp nit daal nu muy def ba xam boppam. ah. laaj naa leen ko. nit nu muy def ba xam boppam. nit pour mu mën a xam boppam foog nga fexe ba yilif kilifa yi ba kenn xam ngeen luy kilifa yi ba kenn bànneex pour nga mën koo yilif foog nga yilif kilifa yi xel mi xalaat soo dominé kilifay xel mi xalaat dominé kilifay bàkken bàkken mi bànneex nga mën a dominé say sentiment sa yëg-yëg boo ko dominé wu rek sànq ndax sa yëg-yëg yëpp war na war nga ko sa diggante bañ ko yëg ci lu neex sa bàkken dong Alhaji Abdul Aziz mi dem ba naan astaxfirullah mimma jaale fii fikri wa ma ata bihi basari ñun nag ndax ñu ngi lu ñu waa lu ñu xalaate wala ñu ko woon xalaat moom mu naan yàlla naa ngi jéggalu te la romb ca sama xel te war a tawoon romb astaghfirullah mimma jaala fi ما أتى به بشري mais xam nga ne Alxaaji Abdul Aziz kenn rek ku mën a jur kenn doom te kooku mooy Seydi Alxaaji Maalik moom képp moo mën a jur Alxaaji Abdul Aziz amul keneen keneen keneen bu ko mën a jur xam loolu tax Alxaaji Abdul dafa laaj Alxaaji Abdul dafa sell Alxaaji Abdul dafa yiw ndax baayam noonu la mel ndax baay ba la mu doon dundee lépp a laab lépp a sell lépp yiw man ci loo sosoo. ah xanaa loolu noonu. ci li ñu sosoo ñun ñëpp. lu doy waar la rek. Moustapha. yéeg ngeen ne ñun ñëpp ci xaalis lañ jógee. waaw. benn mille franc wala deux mille wala trois mille wala cinq cent franc la gëm nga ko wala. nangu ma ko. foo ko teg. biir da ngeen ne nangu ma ko. fan nga ko teg. yaakaar nga wax lu caaxaan rek si man. biir yéen a da nga yaakaar ne du ma wax lu dëgg. yaakaar nga ci mag rek si man. xamoon li ci yow rek de. Ah, yaakaar rek nag. xam nga wax wax wax waxee. Ah, ah. wax lu dëgg la. waaw wax nga dëgg la. Sénégal nag nee nañu léegi maa waxoon waxee dafa xew. toog naa ci tëli bi seetaan benn jigéen bi ni waaje ne ko yow kat da nga waxoon waxeet mu ne ko daa xew ndax taalibi diw laa si affaire ñun ñëpp ci xaalis lañ jógee sëñ Cheikh ñun ci xaalis lañ jógee sëñ Moustapha ñun ci xaalis lañ ndax nañu li nit nut fa lay doon bu ci nut fa doon alaqa bu ci alaqa doon mudara kooku ci wàllu arab la toq niyu lay doon doon lu mu deret doon mor muy ci wàllu wolof ñu ne bu fekkente ne ci wàllu tubaab ñu ne lay doon bu jógee ci spermatozoïde wëlbatiku doon embryon bu ca jógee doon fœtus ñu ne dooma gi dooma sosu nag waaye lan moo ko def spermatozoïde lan moo ko def nutfa lan moo ko def topp topp man yu loo ko def du deret moo ko def deret ga lan moo ko du ko jënd xaalis wax nga dëgg allah xaalis ba lewul danga lew eh. doomu takkam xaalisu takkam nga na ca muy takkam nga lekk ko mu nekk man niyu takkam nga sëy saak sa soxna doom nga sobu ci takkam nga wasin ko mu nekk doomu lan doomu pays mu dagan moo tax alxaaji Abdul Aziz bàyyam Seyd Alxaaj Maalik mu mës lekk dafa lew woor na moom Seyd Alxaaj Maalik ba jot amul lu mu doge benn góor jóge fële ñëw jox ko dërëmu nguur mu ne teg di xool góor bi góor gi nekkul sëñ bi bu bu laam laam bu laam laamee lew naag lewul lew na ma doom dama amoon ay mag te sama tool ma xaar ko xaaj ko ñetti xaaj benn bi ma jaay ko paas si beneen bi ma jaay ko dugal gi sama poos indi ko jox la hadiya beneen bi ma jaay ko bàyyi ko ci kër gi mu ne ngir man Seydal Hadj Malick ma lekk ci lu lew tilka hududullah fala taqrabuha tilka hududullah fala ta'taduha fala taqrabuha fala ta'taduha bul jege ku jéggi la yàlla ne bul ko jege mooy la mu daganal ndax boo ko jegee seen la xaram ba jéggi ko te la xaj maay ne la yàlla daganal ci man sax xaramal naa ko sama bopp lekk yàpp dagan na andi ñu léegi yàpp ga ndax wóor nañu ne nañ koo rendi i xar ba nañ koo rendi wala nañ koo jàpp loolu wóoruñu ndax kay ren la mu doon ren de gaano la wala déet métti la wala du métti dara ñun daal togg nañu dox ñu ñu lekk ñay togg itam nañ ko jënd rek ca marché ba ñu teg ñu lekk waaye Seydi El Hadji ne mu wóoru ko ba xam ndax yàpp bi nag boobu wala xar boobu romboon na toolu jaamu wuñ ca wala déet xool gi xalaatee foofu. kooku mën a jur nag ku mel ni Alhaji Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu taala ak wuy juram du baax jigéen parce doom nañ koy yar ci tàngal ko day du baax waaye bàyyi ba na fekk mu baax mooy la muy dundee bu ko jógee nag dooma takk jigéen du baax ngir préparer njabootam ndax albaladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi izni rabbi waaye nag ba léegi xabuta la yaxruju illa nakiya fii moom doomu coono yi rek a fi nag doom bu juddu ji doom bu juddu ji am na ñoo xam ne ñu ngi juddu ji jamono yi di ñëw ñu ngi juddu ji mais xam nga ci li ñuy juddu caxagul. léegi sax am na bu xew boo raxee boo waxee moom maaka lañ di xam mooy yu nuroog yooyu yéen sëñ Lamine am na bu mu ci def waaw bismillah bisa alladi jaahu zarjilu min caxagun noo gaa ni luy caxagun te jéem di jéem door ko lu la ci réew mi yàqu la te it doomu dund gi cher na te baax yow mi bu koy làggate moo loo ko fi làggate xamal lu des la waxul xamal li ngay def te dal te xam ni waaju dalul baasi dalul lu ko dal nga xam ni moo ko waral borom boromu nit mën jiise ko moom nekk koo xam ne toog ci télé jàpp sa ay moromu bàyyi dimbale leen micro naan leen wax leen kilo ñoom it ñu am ñàkk fayda naan kilo neen dama koy dagate nga naan dama koy dagate naan neen neen mu ngi baax naan mu ngi baax nit day am fulla ak fayda jël la ñu la foowe rek nga naan alxaaji Abdul Aziz doon jéem a doon jéem di dindi jikko yu mel noonu waaye la jéemoon di ko jéem ñenn ñi ñoo ci suréewu waaye fu mu ne nii tey Sénégal Sénégal lu koy jagal gaañi fan la Sénégal di jage moo tax ñu mel baax na ñu mel nii baax na lool di teew ci béréb yu mel nii di taataan si lu mel nii ndax ñi di ñëw ñëpp sànq man suuf na ni si si ma ko la béy ma ne ma lii de ji xàq mun a lax ñi fi ñëw ñëpp yàllaa leen andi ñëwuñu ngir addina ñëwuñu ngir poñetu addina ñëwuñu ngir leneen ndax Tayba ah, ah, ah, ak ak Tayba Tayba ngi nii ñaarde ngi nii Tayba sax nekkatul àll mais fii àll la Seyd El Hadj ñëw fii sos fii mu nii taalif fii ci waawoon taalif fii ñuy wax Jaksaaw ñoom ñaari fi lañu tàkkee kon fa tabarakallahu di nuyu di ziar sama ñaari mag yu tedd yi Cheikh Seydi Mahamadou Moustapha Cheikh Seydi Mahamadou Mansour di ñaanal di leen ñaanal bu baax waaye Mansour itam gàr na ñaanal bu baax ndax lii yëpp moo ko initié moom mooy fondement bi moo fondement lu mel nii ci ndigalu ay kilifa kon nag ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala yal yàlla yàggal seen taxawaay kër gi yaana tool bu yaatu la ku ci nekk da ngay bay sawar ku ci nekk nag amul mag amul ndaw amul baay amul maam kenn ki kenn moom moo sabab lépp muy Seydi El te kenn mënu koo xar sànq sëriñ Mouhamadou Amin nii dafa wax ni maam Hady géej la géej la koo xam ni mu ngi saba boo ci defee su géej ndax géej la mooy Seydi El Hadji Malick huwal bahrul xidam fala yutaamu ida ida amwaaju faadat min maani mooy géej di xaayaan ba xam ne kenn mënu koo féete kaw ña mu ñëpp jaar moom ñu dem ba jëmmi jamono am ñoo xam ne yaakaar nañu lam am ñoo ko amal seen bopp jëlenu ko ci kenn Serigne Babacar Sy nii soo demee ba bëgg a tiim ba ba bëgg a diir mbax gi géej gi pour sonn ndax duusu ba géej gay duusu ba bëgg a féete kaw géej gi ci biir gi la jógee moo ma nag coolee bay rek. wallaahi di wax rek ak di coow. waaye ku ci wéet ci sa biir néeg boo jàng boo jullee ba noppi di nga jàng Faatiha ak salaatul Faatihi yi ñaanal ko Seydal Hadji Malick Sénégal da ngay dégg ku nekk nag am nga sa kër baay nekk sa xalifay baay wala déet. waaye kër Seydal Hadji Malick doo dégg mukk ne xalifa Seydal. mën nga ko dégg. sëñ Mansour moom sant. mooy xale général am lan. ku nekk sa kër nag ne du sama xalifa. dañ nga wax bi de. ñëpp a ngi woote xale général. waaye nag bu 25 décembre jotee wala 31 décembre wala 25 décembre. ca grande mosquée. màggatal euh, li ñuy waxate Maroc Assane de yónnee tijaan yi nekk fii ci Sénégal ñëpp mi ne sëñ Abdou Aziz Dabakh mooy porte parole u kër Seydi El Hadji Malick mooy wax si sëñ Aziz Al Amin ñu tuddee ko ma Abdou mooy turu kër Seydi El Hadji Malick di waxal turu ci turu xalif général bi mais ñaxal ko kenn duñ ko weddi waaye nag boo dellee ci sa kër nag ne maay sama xalifa bopp waaye boo toogee ci penc mi sa xalifa fa munkiruhu lahu xatarun

nee nañ ba muy jàng si dafa ñëw ne ko dafa bëggoon jàng ilmu nujum astrologique indi yi mu ko war a jàngee Seydi El Hadji ne ko haadi yàlla nee na wattaqullaha wa yuallimukumullah waaw wattaqullah wa yuallimukumullah am na loo xam ne kenn doo toog ak sëriñ mu la koy jàngal alxaji abdul aziz ci gàttal am na loo xam ne jàngal nañ ko ko mais am na loo xam ne yàllaa ko ko jàngal ndax wa allamaka ma lam takun taalam alquran la yàllaa ko waxoon sallallahu alayhi wa sallam te ñi fi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al ulama warasatu ndax ñi nekk ci rajo bi la al ulama warasul anbiya ndax ustaas yi ñuy wax ustaas ak islam la ko i xew la ndax ñoom la déedéet al ulamaa ay al awliyaa warasatul anbiyaa ndax baada nabiyina al mursalina arsala al awliyaa warisatan fi diini rabbihim waaye waxtaara Seydina al Mahmoud xayrihim waaye waxtaara Cheikh na Tijaani xayrihim nit yàlla yi ñoo ko wuutu yonent yi ndax yonent yi am na loo xam ne daan nañ ko def muy mujiza yàlla rob ko nit yaay nit yàlla yi muy karamaat ustaas yi mënuñu ko ustaas yi mënuñu ko ñoom li ñu mën rek mooy wax te ndax am nañu ndigalu wax benn ustaas ci jamonoy koor gi am na lu wax nee na fóon sa soxna ci biir weeru koor yàqul koor waxul ci lex mu ne tuñ ak tuñ ak tuñ moo de te ustaas bu siiw la mu ne lu dul góor ga dafa sensible ndax jigéen ña sensible lu la plaisir d'amour dure qu'une qu'une nuit mais chagrin d'amour dure toute la vie. te l'amour qui naît subitement est le plus long à guérir nag. waaye nag l'art de plaire c'est l'art de tromper. gaa ñi bu ñuy ñëw di kii dañuy gër fa tabarakallah waaw ba tax na yal na yàlla yokk sutura si Moussa ñu bañ a guddal waaye sëñ maam Serigne Mansour dafa wax sànq maam Xaadi ak maam Abdou kan moo gis sëriñu moromam waaye maam Xaadi day am na lu sabab mu wax taalifam googu ba dem ba ci biir naan bu sëriñ di gëm bu taalibe yi gëm sëriñ benn yoon ak haadi abdu maa la gëm maa la gëm te ne bu taalib bi defee waaw bu doolee gëmoon nga ñaari yoon ñaari yi rek ci yow. ma way beneen way ba xel du xalam. wax nga dëgg. parce que waykat ma ne waxee dañ ci haaji. ma boccee ci way jaar ci xol bi xolam. xam nga ndax mu wax mbir la. lu ko waral si. mbir la nag. kay mbir la. kooku kenn du ko waxee fii. Hadj Abdou daal. da tax baayam. wax le Abdoulaye Samb doon wax sànq. yaa uddati fi shiddati إن لم تكن أنت فمن ينقذني من الرداء يا صاحب الفعل الحسن طوبى لمن بات بكم مشاكدا عن عن الوطن te Serigne Babacar Si moo ko nettali ba nit ñi xam ñetti xasit ñetti béy yooyu dafa fekk si de xaj Maalik uuf ko naan yaa uddati fi shiddati لم تكن أنت فمن يا عدتي naan Alxaaj Yaafur yaay ki may waajal yaay ki may préparé. kon xam ne ne préparation bi. la mu bëgg ëllëg yàlla bëgg ko ci diine ji tarixa bi kër gi. am na ci loxo yow xaar am na ci loxo yow ñu nekk ji ëllëg waaye du ci loxo Serigne Babacar du ci loxo Mame Mansour ci loxo Alxaji Abdoul Aziz la. yaa ngi doon di si dëkk. in lam anta fa man bu dul yow bu muy doon. wallaahi. xam nga ne Serigne Babacar 77 ans la dund. waaw. day 72 ans 72 ans ca lay yem kon mission ba du moom moo koy àggali Mame Mansour 57 ans du moom moo koy àggali ki ko war a àggali ba mu war a mag ci loxoom Alhaji Abdou Aziz la. maqaam xaymami duuna maylin maqaamul Mustafa yaa maam Mansour ko wax ne maqaama gi yàlla rag gi la yàlla defal gi yàlla teg ci gi yàlla teg ci yow lu dul benn rayante lu dul benn wax bu may wax nit naan ko li nga wax ndax nga wax ko wala foo ko lu ci nit di def def de wala wax koo xam ne damay tey damay wax ngir du la neex ci lu dul benn wax lu dul dëgg boobu mu ne ko maqaama Moustapha maqaama Seydina Mouhamed waaye li gën a yéeme ci wax bi yaa imaam yi te muy magam. allahu akbar. allahu akbar. kon magal nax ci at la. déedéet. mu ne duura may yéen. maqaamu kat yaa imaam yi duura may yéen maqaamu Moustapha yaa zal jamaali oh. eh woo naa la yow mi nga xam ne yaa làq ka taaru yàlla ah. làq ka taaru rasulullah làq ka taaru Cheikhul Tijaani làq ka taaru Seydi El Hadji Maalik mu ne yunqiduni min ar-ridaa yaa saahibal fi'l hasan yaay ki ñuy xettali nag yaay ki ñuy xettali ëllëg ci mboolem mbugal wala mboolem alkande wala mboolem tàkkaar bu yàlla dem ba ndax ko teg Sénégal alxaaji Abdou daal dégg dégg rek yàlla ne ko nangam dem ndax ko teg Sénégal waaye nag soo bëggee bu bañ a dal Sénégal digal leen ñu def nangam nangam nangam mu ñëw ne dafa benn waay bu bu ñëw ci ne ma yàlla nee nangam nangam nangam te waajo ju du waaja waaye Sénégal nag da ngay dégg-dégg rek dégg ku wax ci rajo bi te rek suba war ci biir Sénégal avion dana dana daanu ca université. ña nga xam ne nee nañu ay nee nañu ñoom seen àdduna yu critique la ndax newuñu fa woon nañ nañ a nekk ne critique étudiant yi dañ fa war a nekk naan waaw est dina daan est-ce que waaye ñoom ñëpp ba tey yàlla ku mel ni ñoom Alxaaji Abdoul Aziz lay waxal ñu jaarale ko ci keneen waaye léegi Sénégal ku jóg rek ku jóg rek taxaw wax wax wax wax ñu jàpp ne ñooñu ay borom xam-xam la ñu jàpp ne ñooñu ay nit yàlla lañu nit yàlla bëgg wilaay bëgg du ko gis. wilaaya ak asraar nag dañ koy jaawale waaye waaye bokkul. kon nag mu jeexal ñetteelu bayit bi rek mu ne Tuubaa liman baata bikum musharidan ala al-watan. day yéen Sénégal ku dem ba Tumurànke amoo ku la fàq amoo ku la fàq. mu ne kaay ma yeewal la ci kër boo xam ne soo fanaan leen ci këram yeewoo texe mooy loolu tumuraan ki ci Sénégal ba amoo ku la fa daa ma yeewal la ci kër kër kër koo xam ne boo demee ci këram fanaan rek yeewu texe kana mu ne alxaji Abdul Aziz Dabakh radiyallahu taala anhu kon yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal yal nañu ko yàlla fayal delluwaat di ziyaara si Moustapha bu baax ak Chérif moom lañu waroon jiital di ko baalu xàq ci kàddu yi ñu ngi soxna Lalla bu baax taxawaayam comme ni ko Mansour waxee ak ci njabootam yëpp ak ci doomam yi nekkoon ak moom di ko jàppale ci mbir mii te soxna Zeynabu jiitu ci. loolu mu doon sama soxnaa tax na. waaye nañu koy gërëm rek fa tabaarakallaahu ci taxawaayam. sant ko bu baax. ak ak ñoom soxna Sëti ñoom soxna Fassi ñoom soxna Marème ñun ñëpp fa tabaarakallaahu di la ñaanal bu baax yàlla taxawu leen. ay Moustapha ñu ngi gën a kontaan. sa taxawaay. ci yar dal gi tey gi. yar gi dal gi tey ak joxe cër gi. Seydou Deme nee borom cër rek mu mën a joxe cër. dana jox li cëram du wàññi ci sa cër dara da koy yokk. dana fekk ku yàlla nga ko da nga cay yokkoo ci cër waaye doo wàññeeku ci cër. kon xarit Fapal yal na yàlla yokk la sutura bu baax suñu baay Bachir yal na yàlla dundal faram yal lu toll lu toll waat noonu yàlla dolli ko ci ay atam. defal ko ko defal ko xalifa bi Cheikh Seydi Mahamadou Mansour ak mboolem ay rakam defal ko mboolem jullit ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi déglu lu baax. xurufu ismi ladi qad kaana waaliduna ku sopp Sëriñ Basiru ñam defal nii bu ma tew. Sëriñ Basiru baaxul wasiiru wa yaa sopp sëriñ Basiiru Ñas defal mi yàlla na fi yaa di tëwét xurufu ismi labi qad kaana waaliduna sëriñ Basiiru Ñas baaun wa shiinun wa yaaw raaw min alami la ñëpp def nii wal Basiiru labi fal baaru jaa ala العشرة وبرا خير منسلم وهو البصير الذي فالباء جاء لنا وسرين بصير ينال فيها باء وشين ويا راو من عالمي سرين بصير ينفشيني شرف والشرب مكرمة شفاء صبر من الأمراض كالصحم من يتلف لي في الياء يؤمر ويصور ودون مراء يمين أخواله يعقوب كل يمين وجب دفني في الرأي رأفة للمؤمنين معا ورحمة رفعة مع شدة الرخم نعم البشير الذي قد تاب محتم وقصد سري مسير مصيرا قوى بالفن والكرم تمسكوا الخمر يا أهل الطيبة بالفن البشير من طيب الأخلاق والشيم إن البشير ينولي صالح صالح السلام على مولانا محمد سيد بني أدنان وعلى آله وأصحابه النجد والعناية والتمكين mbokk yi ginnaaw bi ñu musal seytaane ak bakkan te turu buur bi tabaraka wa taala Serigne Mouhamed Aidara mi ngi nuyu usratul malikiya bi toog ak mbooleem njaboot gi ànd ak ñoom ak ñi ñu fekk nee na mi ngi nuyu góor jigéen ak képp kuy xale. nee na mi ngi commencé nuyoo bi ci Sidi Ahmed si ibnu Mouhamed Moustapha si Jamil ibnu Cheikh Al Khalifa ibnu Cheikh Al Hadi Malick Ahmed Serif mu ni mi ngi lay ñaanal yàlla mu dolli la wér-gu-yaram sutura gudd mu tëb mu jullit ak sa kër maam bu la ci kenn ëppale nee na mi ngi teg loolu mu la ñaanal di ko teg ci loxo Serigne Moustapha mi nga xam ni mooy sa mbokk di sa doomu baay di sa daal Serigne Moustapha daal li xam ci moom mooy yiw wu yaatu bari lool nee na xam nañ ni moom day sa mu baax la nee na daal xam nañ ni daal ni bàyyam mel rek la Hadj Moustapha mel. nee na ñu ngi ñaanal suñu way jur Baye Hadj Basir ñaan yàlla gën dool li guddal fanam gën wéral yaram. nee na ñu ngi ñaanal Hadj Moustapha ñoom bii toog nga xam ni moo wutu sooy jur yi wutu mag ñi yàlla dool li ko sutura gën guddal fanam yombal mission bi muy dox. nee na mi ngi nuyu rakkam di ki nga xam ne bis bi ci loxoom la ko yàlla teg mooy Hadji Mouhamadou Mansour Niang nee na mi ngi nuyu nit ñi nga xam ni ñooy seen rakk di seen jëwrin bi dox ci seen ginnaaw di Cheikhou Niang mu ni nit ñu ñaanale suñu mag yooyu yiw noonu la ñuy ñaanale yiw yu itam nee na daal li wér te wóor daal mooy cofeel ak mbëggeel gi nekk ci xolam mu denc ko moom sëriñ daal mënu ko fudd nee na mi ngi nuyu suñu jigéen suñu doomu bàjjen suñu yaay soxna Lalla Niang ñu ngi nuyu tabarakallahu na ah Seynabu daal mënul baax lu tax yi mooy mënul ñàkk a baax baax jox ko papa bu baax ak yaay bu baax nee na bi tabaraka wa taala moo gàncax bu baax daal su baax meññeent mu baax rek moo cay mën a tijjee nee na kon nag mënul ñàkk ñu sant yàlla ci wërsëg gi ñu wërsëgale maam Seexul Hajji lu bari nit ñi xamuñu Seexul Hajji Maalik dëgg dëgg dëgg nee na yàlla nañu yàlla mosoon nag ci ñàkk xam-xam kon day àdduna Afrique ak Sénégal kon daal day nekk yoo xam ne nii dañuy dund te duñ dund ci diine dañuy dund ci làmbatu rek ndokk mi amee Seexul Xaaji Maalik nee na mi ngi leen di ziar Sidi Ahmed yow ak say mag ak ñi nga xam ne tey jii ñoo ko tëkkal ñëpp ziaru tëbb ziaru barkeelu. nee na comme na mu ko waxee woon maam seen Mawlaay Abdou Aziz. nee na moom daal gisul gisul ci bëtam jëmm ju mel ni Mawlaay Abdou Aziz maam Abdou Aziz. nee na daal moom daal xool na ba gis ba fi mu toll gisul ku mel ni Abdou Aziz te yaakaarul daal yàlla ko sottil ay ngëneel ay waan ay jiw yoo xam ne sottil ko kenn. nee daal moom daal lépp yiw luy tiraanga. luy xéewal def na ko ci njabootu islam ci ahlu bayti ku manti doon nee nag waaye nag joxe maam Abdou Aziz yaatu woon na waaye nag ci ahlu bayti la gënoon yaatu nag nee na daal xam na ni moom daal yiw maam Abdou Aziz kenn amul làmmiñ woo ko mën a wala pilim boo bindee wala xel moo ko takkee dig def ci kenn lool nee daal moom daal waxi Seydina Mouhamed de rek nee na Abdou Aziz benn sardin la ci sardin wu aljanna yi nee daal moom daal bari na ci ay yiw loo xam ne nii bari na la ko moom Abdou Aziz Dabakh nee na ku bàyyi woon xel boppam ci yàlla la pour bàyyi woon seen jaam yàlla yi nee na kon nag mi ngi dénk boppam di dénk mbooloo di dénk usra bi ñu ragal yàlla nee na buur bi tabaraka wa taala moo wax ci alquran ni na ngeen fàttali ndax fàttali dina jëriñ nee na jamono ji ñu na lëj goo xam ne nii buñ fàttaliwu rek du nee na daal mooy di tasaaroo ci mbedd yeeg gox yeeg ni mu tasaaroo di nee na tasaaroo bu noonu bu njëkk. nee na wax rek su ngeen demee ba ay mbon mbon ak i yàqu ay ñaawteef yoo leen gisul woon li ñuy bijji mooy ngeen gis feebar yoo xam day tasaaroo bari ba kenn du ko mën a faj nee na ni ko xamee lu mel ni sida tension ak li ñu ëmb yëpp gis ngeen ni bu bëree kenn mënu ko faj nee na ci jamono yu bàyyi yaag maam ya ngeen gisul woon feebar yi déegee ni mu bëree ba woon nee na li ko indi nag mooy sababu mooy yàlla ji ñu saxee di ko def rek peu arrière nee na kon nag liñ ciy dimbali génn ñu ci mooy ñu ragal yàlla rek. nee na ah bu ko man tudd ñoom Cheikh El Hadj Malick mu mel ni El ba tey mi fi. nee bu fekkee nit nee man day maa maa ngi mel ni Cheikh El moom lay roy te defuloo ak ragal yàlla jëfuloo lu mel ni moom kon daal doonoo Cheikh El Hadj Malick jege woo ko moom. nee na yàlla wax na ci alxuraan ni yàlla daañu baax ñi gëmoon yàlla te gëm yàlla boobu sëb yi buñ ñëwee mel ne bàyyee dañ leen di yëgal te bàyyi ak maam yi nee sartu topp daal mooy sartu jëriñoo boo toppee way juri rek topp Seydina Mohamed rek la ñu amoon foo jaar waxtu ci sa meññeent yow itam nee na mi ngi dénk jigéen ñi ci seen ay borom nee na ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na li ñuy njëkk a laaj jigéenam jigéen ëllëg yowmal xiyaam mooy julleem kooram eh, ak borom këram doog koo laaj leneen. nee na ba lañ koo laaj ak Makka ak asaka dañ koy laaj sa borom kër is ko bàyyi woon nga ko xel. nee daal di rek moo jiitu borom kër. nee na mu dénk xale yi ñu bàyyi xel seen ndey ak seen baay jox leen gi ñëpp moom. nee na dañu alxuraan bi dénkaane pour lan doom ñu rafetal ci seen ndey seen baay ci ak moom gën a rafetal nga rafetal ak ñun rafetal jéem a nee na Seydina Mohamed dañu dañu wax ni àjjana day nañ ci suufu ndëggu yaay yi nee na kon nag buñ bëggee am àjjana nañ topp way julli bu góor yi jigéen ñi nee nee na imaamu Malik ibnu Anas nee na laaj ko ci nee na waaw su ma toogee ci ñaari waajur ñu woo la kenn ci ñoom ndey wala baay kan ngay wuy ji da ngay wuy ji ndey wala baay ndey ngay wuy ji. nee na toppal wuy ji sa ndey te bul mooy sa baay. demal wuy ji sa yaay wuy ji sa yaay wuy ji sa yaay doo wuy ji sa baay. nee na kon nag sëriñ nañ topp suñu way jur yi nee na njaaru way jur nee na Seydina Muhammad nee na am na ñetti ñaan yàlla du ko delloo nee na ki tooñ su ñaanee yàlla dafay nam nee na way jur wu ñaanal doomam bu ñaanee nee na jullit bu xool mbokkum jullitam ñaanal ko fekk fàggu na la yàlla rek tax mu ñaanal ko ñaar day nangu nee na kon nag nañ topp suñu way jur yi nee na nañ wax jigéen ñi ñu bàyyi jokk gi ñuy jokk nee na jigéen ñi kenn ku nekk ka nga yilif muy jigéen fexeel ba tere ko jokk ndax bu ëllëg yàlla daf koy laaj Xaj Moustapha nee na bala may dem may leeral jokk mooy mees yi ñi def ci bopp bi mu ni Seydina Mouhamed wax na ni kenn ku nekk wala ruurul. Ah, bu fekkee nag ñëw nga yàlla laaj la te tontuwuloo wala bi nga laajee fi nga tontee amuloo lay wu jub yàlla mën naa la ko saawa su la yërëmu nee na lii ñu tuddee mees boo ko defee boo jàppee du laal der bi soo sangoo sanguwaale sobe nee na te julli mooy ponkeelu diine te boo julliwul sax diine amul te boo julliwul yàlla mën na laa bëggal ëllëg kon nag nañ ko bàyyi. nee na jigéen bii meesu daal nee na jërul muy julli ndax moom bu laabee du laab kon bu jullee julli ga àgg yàlla julli gi soxla mooy julli gu ànd ak sax nee na moom daal bëggoon naa wax lu bari waaye waxtu wee xat comme waxtu bi dafa xat nag te ñii nit bi dañuy dem ko sori te ñuy guddi. nee na ngi yaakaar di ñaan yàlla mi nga xam ne nii moo man moo am moo sañ moo faj nee na bi képp fi teew yàlla yàlla faj say aajo teggi say tiis saafara sa jàngoro. nee ku ànd ak jàngoro yi feebar ak bu mu mën doon yàlla yàlla faj ko. nee na jigéen ju toll ci sëy te amul borom kër yal na ko am góor gu toll ci denc te dencul yal na nga am loo mën a denc ba denc. nee moom daal li muy daal waxu yàlla jim ni daal na ngeen wuyu suñ leen woowee ci yiw. nee na Seydina Muhammad kat am na lu wax nee na ñaan gànnaay jullit la nee na kon nañuy ñaan. nee na li ngi ñaan suñu mbokk mu baax nii suñu mag ji suñu murabbi bi Mouhamed Moustapha nee na li muy ñaanal bàyyam xaaj Basir ñaan ak suñu tante Ayda ba dem yal na yàlla dolli leeram nee na yàlla tëbb ko. Uh-huh. nee na suñu tànta ay da day ca jàmm yal na yàlla dooli jàmm waaye bu yiw la woon nee na su ma daan ñëw ci Taïba daf koy defal yiw wu man di xam rek ci yiw dina ko defal nee na nag ah mënul ñàkk nag nee na mënul ñàkk suñu yaay Ayda di def yu mbaax yooyu ak yiw woowu ndax fa mu génnee mbaax rek moo fa am ku génne foo xam ne mbaax rek dafa am nag mbaax rek ngay mën a def. nee naa ah suñu bàyyi Alaaji Basiir nag wax dëgg yàlla moom it kazaalika jamono nag moo dem ba ay atam toll boo xam ne nii duutu jaadu duutu jekk ñu koy génne xam dañ koy bàyyi rek di ko sakkanal di ko ñaanal yàlla yàlla yokk aw fanam waaye rek moom noonu mu tudd rek noonu la mel. nee na jamono ju nekk daf fiy ñëw ci moom jamono joo xam ni moo xam koor wala leneen nee na jamono ju ñëw di ko seet si di waxtaan ak moom nee moom daal ci gudd ci gàtt mi ngi ñaan yàlla mi am yiw bu sotti yiw ci njaboot daal ak Basir ña nee na mbooleem sëti maam Basir yi ak sëti Seexul Haaji Maalik ak sëti wali yàlla yàlla defal leen yiw bu yaatu nee nee na moom daal du ñaan ba jeexal te ñaanal soxna lan la ak sëñ Babacar Abdoulaye suñu koy jóg yàlla doole leen yiw ndax ñoom kat li ñu yenu ci yiw bari na li ñu yenu ci njaboot bari na li ñuy wuute ci wuute ci mag ñi bari na kon yàlla yàlla doole leen yiw. nee na daal suñu bàyyi ba ma ko Abdou Aziz daal moom du deñ jamono ju nekk rek mi ngi koy teral moom sëriñ bi. nee na nag mënul ñàkk nag si baax nga si Abdou Aziz mel noonu ndax doom ju nekk sa bàyyi ngay dul te Abdou Aziz li ñu wax ci moom lépp ci ay baax ku xool euh, moom laay baax nga si bii xam ni bàyyam bu sotti la. هو أعماله لا nee na dégg na sànq menn mbokk di wax ni maam Abdoulaye day deewul déedéet deewul ndax ak yi ñaanam sax deewul umra nga fi woon woon la ko nee na jëf yi yi mu defoon mi ngi fi ruuxam mi dañ koy tëbb ba léegi nee na ruux mi ci àjjana ruuxam mi ci xool yi jullit yi xooli nit ñi nee na jëf yi du jeex nee na moom daal wallaay ñu bari ñu ngi jot ci moom jot ci yiw yu bare bare bare bare nee na mi ngi jot di ñaan di yaakaar ñi fi teew ñëpp yàlla sotti leen yiw yi mbaa baawaan yiw yoo xam ne nii dañ koy jële fii nee na place bii kat place su ñaanukaay la ndax maam Seexul Haaji Malik sax na fi ay jamonoy jamonoy jamono kon li fi liggéey nag place la boo xam ne ni ku fi ñaan seen yaakaar konoon nañ ñaan bu baax. nee na mi ngi waxal ñi am xel. nee na daal moom nañu bëgg dem ci Seexul Haaji Malik ak ay njabootam ay sëddam ak ay sëddaatam ndax kat ñoom fañ nekk ku fa dem boo demee rek boo leen toppee jariñ nee na moom daal mi ngi wax boppam ak jullit yépp mi ngi laayee bopp biire boppam ak jullit yépp bàyyiwul kenn nee na nañ daw ñu dëpp Seexul Hajji Maalik nee na Maam Alaaji Maalik daal di gàttal yiw àddina ak alaaxira yàlla da koo boole jox ko ko ku ko yor nag boo demee ci moom bu jox la ci kon lañ dem ci moom Seydou Hadj Malick nee na kon Hadj Moussa wax kàddu yu gudd gàtt lu ci jub ci moom la lu ci dëng ci man la mu ngi delluwaat di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Sëriñ Moustapha mu ni lépp lu waay am nga fekk ko fii ñu jox ko addiya maamam sallallahu alayhi wa sallam kon nañ indi sëriñ addiyey maamam sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Moustapha moo ko wax ndigalam la su daanee ba si bu fi nekkoon noonu la koy waxee te noonu lañ koy jëfee على النبي احترموا حرمته وعظموه أعراته فاصطموا المصادتهم أنا يحترموا غرتهم وعظموا أعانهم وصدقوا نعم كل تفكير ci ni Serigne Sidi Ahmed bii indi ak njabootam gi topp ci ginnaaw. nee na rajo yi mu indi nag ci jóge mbër la. ko jox dara ni yaa ngi lakk. yaa ngi lakk. yaa toog dee nett gi la. nee na kon jox. yiw. ci loolu yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. mu ni. ñu ngi gërëmaat xale yi tey ñu jógee Dakar Tivaouane ñu ànd ak soxna Seynabou soxna la la yebal leen sax. toog leen. ñu ñëw ñu indi aññi. toog leen xarit ñaari toog leen. ak ñi ñu fi fekk. daayira Serigne Moustapha nii nekk Pekes. al iman wal amal. soxna Mayram Sow ñoom. Alhaji Seck. ak ñi ñu àndaloon. tabaarakallahu nee na mu ne am na xale boo xam ne sax jaar na fa di siyaara ñoom seen yaay ci ngoon gi la ñu ñëw ñooy iman wala amal bu fekkee ci mag ñi Serigne Mansour mi tabaraka Allah yàlla yàlla fay leen nee na mi ngi gërëm ay rakkam nee na mi ngi gërëm Serigne am Serigne Mamadou Moustapha Niang ak Serigne am rakkam Serigne Sy Ahmed Sy nee na moom daal ñu ngi leen di ñaanal ak Cheikh Niang ak groupe bi ñu àndal Serigne Mansour nee na mi ngi leen di ñaanal yàlla. nee na ñu dem tàgg Seydina Mouhamed yàlla ni ma fa yàlla fay te fu ngeen ak ñun bégal ñu tabaarakallaahu ngeen wàcce seen bopp nee na yàlla fay ñëpp nee na ñii tëgg tëdd ci armeel yi di doomu maam Cheikhul Haaji Malick di doomu maam Gumba di Sëriñ Basiru Amar maam Ousmane Faawo ak njaboot gi fi tëdd yàlla yàlla dolli seen leer boole waale ci bokku di bépp jullit boo xam ni dëppi maam Adama alayhi salaam ba léegi ci sababu bis bi ci barke bis bi yàlla ñu dugg ci ak Seydina Muhammad ak ñi demagul sax yàlla ñu gudd fan. fekk seen i parcelles. yàlla nañ ko fekk seen i parcelles. bëgg du mën a passé bëgg. ñi doon tànt. ñi fi nekkoon. ñi si bi. di bale. di bàyyi ka bale. ak képp ku ci participé. sëñ Mansour daal nee na képp ku ci participé moo xam xel ba sax sax la. yal na yàlla yoral la sa tey ak sa ëllëg. nee na yàlla mi am lépp yal na yoral sa tey yoral sa ëllëg. di jaay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. nee na moom daal dafa kontaan waaye mënul woon ñàkk a wóolu jërë ngeen jëf. Serigne Moustapha mu ne ñu doon laaj adee Serigne nañu ñëw. Serigne Moustapha mu ne ñu doon laaj adee Serigne nañu ñëw. sëñ yi jëm Dakar xaar kàddu yi sëriñ Moustapha nee na sëriñ mi moo fi Seexul Xaaji Maalik moo fi mag moo fi suñu kilifa nee na suñu wax loolu ñun ñëpp dañu wax ba pare mu sant ñu ñu jëm ngeen toog nag déglu ñu moom si Ahmed Mansour ak Hadj Lamine ñu jotale tànn kàddu yi jotale moom Hadj Moustapha moom nag moo war tëj kàddu yi nag toftante ñaan bëgg nag bu kenn jóg. na ñëpp toog xaar ñaan ñii kër yu saxaw ñaan nee na sëñ si Ahmed mu ni ñi ñaan ñëpp ñu toog xaar ba sëriñ Moustapha ñaan ñee dem Dakar ak ñee dem Taïba ak daal fu waaye mën a dem te bis bii indi woon la toogal ba sëriñ Moustapha ñaan nee ñaan yi yëpp yi ñaan yi yëpp ñaan yëpp ci soxla yi ci ñaanu sëriñ Moustapha ji moo la ab kàddu bi moo yëkkati ci la yàllay sukkandiku ba mën nangu seen ñaan yooyu faj aajo yi kon nag ma ñu toog ñun ñëpp diglu sëñ Moustapha Xaaji Moustapha mu ni ñaan nag ndax suñu mbokk yi ñoom it tabaarakallaahu ña nga ca seen yëf ñu jàng fatiha salatul fatihi xam nga yéen yëpp nag wax leen amiin yaa rabbal aalamiin yal na yàlla nangu yal na ko téye ay doon yu bare bare bare ci daraja Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni am na jaamu yàlla bu yor kiis yoo xamante ni maam Cheikh Hadjatul Aziz Dabakh bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa bay mi fi nekkoon yoroon xilaaf ci bootoon njaboot bi Maodo si bootoon bu leen ko fàtte di ñaanal xalifa bay mi fi nekkoon Srimata jabange Maodo Srimata. maa ngi leen ko faat di ñaanal te xam.